famille Cheikh Anta net bu Dakar net dalati leen a jàmm rendez-vous ba jot na waxtu ba jot ñu daal di leen nuyu fañ leen daal nuyoo fi nga xamante ni mooy suñu studio fii ñu nekk ci diwaanu Ouest ginnaaw bi ñu sant yàlla jëlee ci yonent bi sangu-sang yi gërëm waajur yi sant ñi nga xamante ni yéen booba tey yéen a ngi ñuy topp ci li nga xamante ni mooy Top Actu comme ni ma koy waxee fu samedi jotee ma jàkkaarloog moom la charmante mami ci loo ne. maa ngi ci jàmm baax ci loo ne yaa ngi bi nii tey toujours ma jaawale la ak kii <laughs> nu mu tuddati mu ngi tooñ nag Nikita Nikita dañ ma koy wax ne nañ ma daal kooku ngay dendal moom dafay ndoog Nikita mooy actrice boobu nga xamante mhm. ne yow tamit nga nuyu leen waaw ñu euh, mhm. nga ci euh, jàmm mhm. di leen nuyu ñoom ñi nga xamante ni tous les samedi ñoo safoo di ànd ak ñun euh, li nga xamante ni mooy top actu nga xamante ni dañuy dikkaat ci xibaar yi nga xamante ni moo gënoon fës ci ay bés yu ñu génn David loolu la ndax mbégte laay am saa su ne di féggoo ak yow rawatina nag li nga xamante ne mooy actualité yi mm-hmm. mami gis nañ ni jamono ji actualité yi ci dëkk bi dafa tàng amal Sonko bàyyil aji loolu dafa nekk loo xamante mm-hmm. la ñuy nar a dooree li nga xamante ni moom mooy suñu actualité yi wàllu euh, jàpp gi nga xamante ne nemmeekoo nañ ginnaaw Guy Marius Sagna ak ki nga xamante mooy Assane Diouf rawatina Clédor dafa ma dafa amaat yeneen lu tukkee kuwaat ci yeneen jàpp mm-hmm. leneen tukkee na ci ñeneen ñu ñu euh, teg loxo ku ci mel ni euh, Dame tey ci bëccëg bi ginnaaw bi nga xamante ni nag dañoo demoon fële ca place de l'indépendance bëggoon fa amal li nga xamante ni mooy ab marche boobule marche nag nga xamante ni kii di préfet de Dakar da leen ko tere woon ñoom nag ci lañ daal di dem foofu ngir amal fa seen ab marche ginnaaw bi nag ci la fa police wàccee daal di leen di teg loxo ki nga xamante ni mooy Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci euh, Karim Xurum Xaq ak ki nga xamante mooy Dame nekk jàngalekat ñoom ñaar ñooñu nag depuis euh, coowal Ousmane Sonko beeg Adji Sarr ñu ngi taxaw fépp ji euh, jàppale ki nga xamante ni mooy euh, Ousmane euh, Sonko ñu jàpp ni jamono ji nag yoon teg na leen loxo fële ca place de la place de l'indépendance ñoom nag li ñu leen di toppee mooy manifester bi nga xamante ni dañu leen ko tere ak li nga xamante ni moom la ñu tuppee trouble à l'ordre public. mami defe naa jamono ji li nga wax bokk na ci li nga xamante ñëpp ñoo ko nawloo ñenn ñi it nawloo wuñu ko ndax marche defe naa ni waxee droit nekk mu def rawatina nag li nga xamante ni gis nañ ko bañ leen di teg loxo waaye tamit day baax it bu fekkee ni it da ngay def marche nga xaar ba ñu autoriser la ko ngir luñ ciy bañ saa su rek mooy ñi nga xamante ci raabu déem ak yi ni mel waaye ñu demaat feneen ci li nga xamante ba tey ci la desandi muy wàllum Sonko googu bu ñu waxee immunité parlementaire boobu nga xamante ni mm-hmm. mooy euh, malaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko nag dañoo ko yëkkati ñi ki démb fële ci pencum ndaw réew mi ginnaaw bi ñu convoqué député yi ñoom nag daal di nañu déggoo ci kàddu daal di yëkkate li nga xamante ni mooy mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko jamono ji nag ñu jàpp ni Ousmane Sonko citoyen simple la maanaam nekkatul député ca loole nag bu ñu demee bay amal yooyu les votes ñi nga xamante ni nag ñoo far ci opposition bi dañoo gedd saal ba daal di génn ba ñi nga xamante ni nag ñoo far ak nguur gi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo fa desandi woon ngir amal boobu les votes ca yooyu les votes nag ñu jàpp ni quatre-vingt-dix ca ñoom nag daal di nañuy wax ni ànd nañ ci ñu yëkkati ko kenn ca ñoom moo ca àndul ñaar ñi nga xamante ni nag ñoom waxuñu waaw waxuñu déet ca yooyu le ca yëkkatiwu mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko boobu nag ni ki démb ñu jàpp ni ay manifestation daal na am ci biir réew mi lu ci mel ne fële ca Tëngéej ak ca Parcelles Assainies waaye fële ca Guédiawaye ak Patte d'Oie jotoon nañ fa taal ay pono ngir naqarlu loolee ci kawit loolu sax la ñuy desandi ci wàllu immunité parlementaire bi nga xamante ni moom Ousmane Sonko di njiitu Pastef euh, ginnaaw bi mu xamee ni sax dind nañ ko lam ca wax leer na nee na li nga xamante ni mooy immunité parlementaire am day des dàkk ñu dind ko ñàkk ko dind du tax ma wuy ji ndax la ma gis mbir ma ca damuy door lépp ci politique la ko teg batam batamee ko la ñu bëgg yóbbu ko jaarale moom fa ñu jaare kii di Karim Wade ak Khalifa Sall waaye nee na ko nangu benn benn yoon googu la sax daal di wax ni ki nga xamante ni kat moom moo di juge d'instruction bi di Mamadou Seck jamono ya mu ñàkkee waajuram ca la ñu ko baptam baptam bi daal di koy indi ngir rek mu jël dossier yi teg la nga xamante ni mooy daan ya jaarale ko fa mu ko war a jaarale ba nga xamante ni Ousmane Sonko jamono ji dañu koy nëbb lii di jant bi ci kawit loolu maanaam mami dañuy dem foofu nga xamante te mooy ca Macky la nga xamante ni indi na ko muy wàllu dose yi mm-hmm. dose yi nga xamante ni nag daal di nañuy ñëw ci biir réew mi ni ay euh, bés yu ñu génn yooyu la dose nag ñu jàpp ni fii ci réewum Sénégal ki nga xamante ni mooy jëwriñ ji Diouf Sarr moom moo ko njëkk jël moom nag ak ay collaborateur maanaam ñi mu ànd di liggéey boobu ak léegi ci mbas mi mhm. ñoom nag jot nañoo jël euh, boobule euh, dose ca noone nag ni ki démb la ki nga xamante ni mooy euh, Macky Sall daal di jël moom itam ñakkoom ca fële ca palais de la République ca boobilee jël vaccin nak ñu nemmeeku ci ni ay kilifa yu bari daal dinañu jël ñoom itam seeni vaccin mhm. ku ci mel ni Idrissa Seck moom itam daal dinay jël vaccin mhm. ñu jàpp ni ginnaaw vaccin nag njiital réew mi daal dina yëkkati ay euh, kàddu daal di wax ni li nga xamante ni mooy vaccin yi xel mën na cee dal nañu def comme moom mhm. daal di jël yooyu lee ñàkku ndax moo nekk li nga xamante ni mooy arme bi war a mën a faagaagal li nga xamante ni mooy euh, coronavirus fii ci biir euh, réew mi ca yooyu les kàddu mu yëkkati nag daal dinay wax ni yooyu les vaccin bu ko sénégalais yi jëfandikoowul dina ko may yeneen i réew mhm. kàddu boobee nag daal di jaaxal askan wi ba mhm. ñu bëri daal di koy naqarlu ndax jàpp nañ ni warul woon a waxee woon noonu na ma ko waxeewul la tax kay ji vaccin yi sax dugg ci miim réew moom la ñuy waxtaanee ndax la nga xamante ne def na ko mu di ay dégâts tax hôtel bii di King Fahd Palace ñu ci bari ji ma mi daal di nañ leen di wàññi. Mhm. wàññi yu bari fële ca hôtel euh, King Fahd Palace ñoom nag ñu ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay liggéeykat yu nekkoon yu nekkoon foofu ca biir hôtel ba doon fa daan seen doole ñoom nag daal di nañ leen di dàq ginnaaw bi nga xamante ne nag dakkaloon nañ seen ab liggéey lu toll ci fukki weer ak benn ñu toog boobaak léegi liggéeyuñu ñu xëy rek daal di leen di dàq loolu nag ñu koy naqarlu lool ki nga xamante ne nag moo yoroon seen kàddu tudd euh, Véronique nduur moom nag daal nay wax ni boobu lee dàq teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon ndax euh, li li nga xamante ni mooy licenciement abusif maanaam dàq ci àndul ak ci lu àndul ak yoon loolu lañ daal di def ak complot loolee nag daal di tax ñu ne mbir mi dinañ ko yóbbu ca kanamu àttekat ba ngir mu jox kenn dëgg ci ñàkk kenn googu ñu doon sax kennal ñu bàyyi la xew ci diwaanu buun jamono ji. buun lu doy waar moo fa xew David daal dinañ fay teg loxo ki nga xamante ni moo fa doon amal benn euh, xaraf. ak ñeent ci ay yaay yoon teg leen loxo ginnaaw bi ñu bëggoon a xara xarafal ay euh, ndaw. mu doon nag lu doy waar ñu bari sax doon wax naan est-ce que booba tey wala loolu ba tey ma ngay di dem ci mbim réew. Mm-hmm. am na la nga xamante ni fa la xewee ci diwaanu Boune ma nga nekk ci département wu Pikine ab soxna soo xamante ni day xarafal ay jigéen te ñoom nga xamante ni sax jot na leen xarafal ba ñu jaar fa ñàkk seen bakkan seen at tolloon ci juróom-ñaar jàpp juróom-ñeenti at mm-hmm. la nga xamante ni jamono ji la askan bi yëpp di laaj mooy li ni mel ana nan la ci seen yaay yi sax mën a àndee ci complicité boobu ba xale yi ñoom ku ci nekk mujj ñàkk seen bakkan waaye tamit ci fàttali moom yaay jooju nga xamante moo doon def li mel di xarafalu jigéen jamono ji teg nañu ko loxo nañu ko jàppee nag bokk na ci mutilation génitale rawatina nag ña nga xamante ni ñooy ñeent yaay ci xale yooyu bokkoon na ci complicité mineur yi nga xamante ni ñoom la ñu jël tayale leen ba daal ñi ñàkk seen bakkan ci loolu mami mm-hmm. mutilation génitale nag dañu ko tere ci biir réew mi maanaam xarafal jigéen loolee nag pour ñun sax jeexoon woon na waaye mel na ni mu ngi am ba tey. loolu daf ñoo jaaxal ndax réew mi nga xamante ni réew mi teranga la Sénégal la ñoo ko bokk kon lépp loo xamante ni waaye dañu ciy mujj di ñàkk sa bakkan mami dafay doon lu jaadu ñu bàyyi ko. Mhm. du jaadu benn yoon kon ñu ciy bàyyi xel bu baax waaye nag fii la ñuy yemandi ak yéen daal di yëkkati euh, jotaay bii lii rek la ñu jàpp ni moo fi gënoon a fës ci ay bés yu ñu génn di leen jaajëfal ci ànd bi euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo di topp Dakar net ci ay information en temps et en heure euh, David fii la ñu yemandi. kontaan ak mbégte jàkkaarloo nag yow feggoog yow ci li nga xamante ne moom nga jox ñi nga xamante ni ñoo la safoo safoo ma safoo Dakar net mm. mu di ay actualité yu gën a faar actualité boo xamante ni day xew ci semaine bi ñu jël samedi bi jàkkaarloo ak yéen daal leen koy faram-fàcce defe naa li ñu leen jox tey neex na leen fii rek boobu ñu joxaale dig daje mami kontaan nañ. Mm-hmm, ñoo leen gën a